mbokk yi di leen nuyu di leen dalal si télévision gi ngeen taamul seen bopp juróom-ñaari waxtu moo jot ci Médinatoul Salam ci diwaanu Mbour la prison centrale bu Thiès. moo jot fii ci 2STV dalee nag jàmm ci xibaaru ci ngoon ci kàlla may ko ci la gën a fës ca bopp ba jëluñ ji ñu dënk wàll jëluñ gi ñu dénk wàll li nga xam ne moo di élevage ak éleveurs yi ñoo dalal nekkat li nga xam ne moo di xar du manqué ci tabaski gi li nga xam ne nag ñoo di taalibe Seex Béthio Thioune di cantaakone di ñaalo doxalinu jëluñ gi ñu dénk wàll yoon ci biir réew mi ñu nekkat kat dafa dugal loxoom ci li nga xam ne moo di dossier Cheikh bi fële nga xam ne moo ne diwaanu Ziguinchor dañ faa lancé campagne goo xam ne du toll si ñeenti téeméeri milliards ak ñeent fukk lañ ci daal di dugal eh, li ko tax a jóg nag moo ne dimbale ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ci wàllum dund ci Sénégal rawatina ci biir nawet gi diwaanu Syrie xeex gaa ngay gën di tar ca diggante waay fipp yi ak soldaar yi nga xam ne ñoo ànd ak nguurug Bachar al-Assad fi mu nekk guerre civile la ñu daal di njortu ci gis-gis nag du toll ci ñaar téeméeri doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan mbokk yi lii moo di ponk xibaar gi su ngeen taaxeerloo ñu daal di ñëw ci parampàcce gi kon mbokki nañ leen ko waxee ca bopp ba jëwriñ ji nga xam ne la ñu dénk wàllu càmm gi ci biir réew mi moom mi nga xam ne ak sàmmkat yi tey ñu doon dajee ak taskatu xibaar yi la ñu xamalekat moo di tabaski gi njaboot gu nekk di nga mën a tabaski ci seen amu wareen dinañ fexe ba ku ci nekk soo bëggee xar di ko daal di am su fekkee ne sax mali coow la am tax na xar ya fa daan jógee du yegg si biir réew mi ñoom bépp luy matuwaay daal nañ koy jël ngir xar am lu doy ci biir réew mi soxna Aïssatou Anthia Touré ak Libas ngir ña nga woon ca jotaay ga njaboot bu ne ak benn xarum tabaski moo xam nu sa poste toll mu doon bëgg-bëggu nguur gi ci tabaski bii di ñëw gouvernement bi fas yéene def lu raw at yu weesu ministre de di xam xamle ne lépp dina jaar yoon na li nga xam ne nag mooy préoccupation gouvernement bi mooy que xaru tabaski am sénégalais bu nekk ak nu sa poos mën a toll nga am ca loo nga xam ne di nga fekk xar mu tolloo ak moom nga mën koo jënd. daaw lu mat juróom-ñaari téeméeri junni ak. fukki junni ak ñaar ak fukk ak ñaar maanaam 712000 xar la ñu soxla woon fii ci biir Sénégal pour mën a tabaski ci biir 700 yi 280 et quelques mille maanaam ñaari téeméeri junni ak juróom-ñett fukk yi daanaka fii lay dugg si ci biir Ndakaaru li ki des nekk ci biir région yi kon lu demee noonu bu fekkente ni war nañu ko wut. war nañoo xool li nga xam ne am nañu ko fii muy disponibilité au niveau national seet nag leneen li nga xam ne dafa war a manqué fan la ñu koy amee. ak li xew ca yi mi nga xam ni lu ëpp ci production bi fa lay jaar réewu Sénégal ren ji jël dogal mottali yépp ak ay propres ressources am éleveurs yi di dalal xel yi. xam nga loolu am nañ ci yaakaar sax boo gisee tey firnde bi rek ci balaa Korité bi ñëw no affaire bi yàpp bi jafe woon xam nga demoon na fi boo kilo mille huit six cent deux mille huit cent tey si ko wante ci biir korité bi rek am na ñuy jënd deux mille am na ñuy jënd léegi bu yàpp bi mu ngi dem ci mille neuf cent kon nag am na nañu yaakaar suñu jógee ci loolu it teel ci jóg teel ci waxtaan euh, mun nañ ko fànk incha allah. tabaski bi dafa dugg ci biir mbéy boo duggee ci mbiir mbéy nag euh, mun na ci gàllankoor. sabu lu tax loolu fu ñu doon xar yi nekk ay tool ñoo fa nekk de tool yooyu it war nañ ci waxtaan ak borom jur gi ak borom tool yi nu ñu defante jàmm su fekkee commence bi yàqu na rek dina yàq lu baree bari kon nag war nañ ci ñoom it waxtaan ak ñuy indi xar yi ñu xam ne tabaski bi moo leen di fi indi euh, saawa bi moo leen fi indi ñu xaw leen yaatal fu ñuy jaar. laata conseil interministériel bu mujj si mbirum tabaski 2012 éleveurs yi fësal seeni jafe-jafe maanaam coono yi ñuy jànkonteel ak takku der yi wàllum dem ak dikk bi transformation laitière bi ak yeneen. ministre de l'élevage di leen woo ci ay waxtaan yu yaatu ngir safara yooyu jafe-jafe soxna Aïssatou Anta Touré geneen ndaje ak taskatu xibaar yi taalibe Cheikh Béthio Thioune di cantakun yi ñoo ko amaloon eh, li ñuy ñaawlu moo ne doxalinu jëriñ ji ñu dénk wàllu yoon ci biir réew mi ñu ne kat loo xam ne yoonam moo di communiqué gi mu génne di wax ne kat mbàyyi négo négo gi ñu doon ñaanal Cheikh gi moom moo ko bañ mu nekk loo xam ne dañoo gis ne nekkul njaaxaanaay la daal di tëddee ci bële yoon ndax lii yoonam nekku ci ndaje moom nga fa xamante ni moo di ministre de la justice. ñu ngi ñaan nag mu bañ a doon communiqué am ndax bu dee communiqué loolu lu grave la quand même ñaanub négandiku bu ñu bëggoon Cheikh Béthio Thioune am côté ministre bi daal di lànk ñoom ñu gis ne li ni mel day nëxësal li nga xamante ni moo di principe de discrimination positive li ni mel tax ñu daal di dakkal tekku tekkaaral bi ñu nekkoon gis nañ ci sunu réew effectivement ne nit ba tàyyi téye nañ la dans les liens de la détention dans le cadre d'une enquête boo xam ne ni ba ñu daal di may nit ñooñu ñu daal di mën a ñibbi ci seen kër am bàyyi négandiku te du tee enquête bi di wéy l'essentiel rek bu boobaa mooy na présenter ay garanti de représentation yu yu yu suffisamment solide yu tax effectivement justice mu wóor ko ni kii bu ko bàyyee du doon ku ko rëcc or histoire li mu wane ak jurisprudence très récente c'est que effectivement am na ñu ñu fi bàyyi ñoo xam dañoo demander liberté provisoire ñu bàyyi leen ñu dem. loxo wu set wecc ak wér gi yaramu cheikh bi ñuy laam-laamee jamono ji di ay kàddu yu cantakun yi daal di teg ngir ñu bàyyi ki nga xamante ni moo di Cheikh Béthio Thioune. ñu téye ko fi ñu ko téye mu am présomption d'innocence enquête bi di wéy te yeggagul ñuy sàkku mu am liberté provisoire ba mën a dem toppatoo ji mbiru santem te du ko téye. garantie de représentation yu solide yi mu am tax il ne sa substituera pas il ne sa dérobera pas à la justice yooyu yëpp daal bu amee te mu mel ni troisième demande en fait bu ñuy bu ñuy rejeté ndax am na une première demande pour raison médicale qu'on a rejeté une deuxième demande boo xam ne ni pour éviter que ñu jàpp ni on a que des raisons euh, médicales à invoquer pour que cheikh bi génn deuxième bi on l'a axé sur d'autres d'autres raisons yoo xam ne ni droit moo ko maye muy le garanti de représentation muy dossier bi fu mu toll ñu rejeté ko en première instance ñu def appel chambre d'accusation rejeté waat et ça commence à faire long pour une personne bu am 76 ans d'âge ku yi ne dañuy wéeru ci li nga xamante ni moo di démarche citoyenne ak républicaine ngir mun a wéyal seenub xeex wante nag ñu ngi ñaawlu bu baax a baax tekk tekkaareel bi nga xamante ni ministre bi am na ko ci kàddu yu ñaaw yi nga xamante ni ñu ngi koy yëkkati saa su ne di ko teg ci ndodd ki nga xamante ni moo di Cheikh Béthio Thioune Badara Diop ñeneen ñu am lu ñuy ñaawlu moo di askan way yeewoo xaar yàlla Bastos ak Patte d'Oie ñooñu kat ndox ma leen sonal lool ginnaaw taw yi fi amoon ñu ne ndox ma fi mu nekk moo nangu seen biir kër ya yemu jax ni foos ya dafa daal di toj jaxasoog mbalit ma nga xam ne moo fay jaabaa jonge ba tax fi mu nekk dund gu métti la ñuy daal di dund Coro Njaay xëyoon dem def fa doxantu. Bastos Grand Yoff xaar yàlla wala sax Patte yooyu lekkoñ décor bi rafetul dara ndox mi moo fa taa ba pare di imposer doxalin ña dëkk. boobu la ndox nag jaxasoo ak foos yi ak mbalit yi dafay gàllankoor dem bi ak dikk bi dolli ci nag di andil ay jafe-jafe waa ONAS yi di liggéey ci wàllu woowule. ñooy eh, dañu dénk li nga xam ne mooy assainissement liquide ak euh, mooy eaux usées yi eaux usées traitées yi et aussi une partie des des eaux pluviales ñun balaa chaque taw buy ñëw. Euh, dinañ def ñun lu ñuy wax ce qu'on appelle euh, des opérations pré-hivernales c'est que dina nettoyer les canaux yi nga xam ne ñoo koy gérer nettoyer aussi le réseau bi nga xam ne ñoo koy gérer. gis nga fi ñu taxaw euh, xam nga fii ay suuf moo fi nekk ak euh, mbalit ñu nag suñu réseau bi sax problème yooyu dañ ko am parce que bu tawee pare suuf si nga xam ni moo nekk ci mbedd mi bu fekkee ni euh, voirie yi defuñu kenn génnul suuf si ak les ordures ménagers aussi kenn traité ko normalement donc yooyu yëpp day wala ngaan ñëw dugg ci suñu réseau yenn bouchons yi ak yenn problème yu ñu boo gisee loolu moo koy waral. bi bii sax tane na booy seet parce que bu njëkk bi man laa yëpp si kaw mur yi la ñu nekkoon waaw ñu génne affaire yi yëpp xam nga basoos moom musul taa mais canal bi moo ñu sonal quoi. ñun moom gisuñu kenn gisuñu kenn parce que chaque essence da ngay woote onance rek boo leen wooyee ba la ñoo ñëw du nga yow di nga daj lu nekk xam ga fii booy yi ñu ngi ne gis nga fi koñ bi xale kese la macha allah. waa Pastef ñoom jàpp ne kanalu front de terre bi moo leen andil bi la njàkkare ci boobu la waxtu waa Padois ñoom ñu ngi jéem a yooyu la ndox ak jomtukaay yu néew yi ñu am. waa dañoo xëy fekk fi fekk fii fees dell ak ndox moo tax ñu ñëw ŋàcce ko génne ndox mi ak mbalit mi gisoo mbalit mi gars duñ ko bale sax su ñëwee mbalit mi dañ koy teg fii day salte rapajo. ñun su ñëwee duñ fi xaar kenn dañuy ñëw luñ ci mën ñu def ko génne ndox mi yëpp mu dem bale génne ndox mi mën a liggéey. bii sax teytaane na waaye bii paase nu nga sunu kaw lal ya tëdd ndox ma fekk nu sa kaw may taman dama feebar sax ma cëppeelu si biir ndox mi ndox mi di ma yem fii. askan wi nag ci métit la ñu nekk su xasee ba taw rekk ndakaaru ak ay koñam dafay daal di soppaleku làkk bu jafe jéggi lool. Coro Ndiaye askan wa nga xam ne ñoo nekk ci yenn gox ca diwaanu Ndar géej ñoom mbarit moo leen sonal ñu ne su fekkee ne chaque jour ñu daal koy bu terewul loola ma fay jaaba jonge ba noppi ñi nga xam ne nag ñoo ñi nga xam ne ñoo war a wàccoo ak boobu liggéey te ni ab xalaat bëccëg boo xam ne dañ ci xaar xool fan la jafe-jafe gi nekk ngir daal di koy weccoo kilifa yi nga xam ne ñoo leen ci war a jàppale ngir xool nañ lañ koy saafara ba loolu daal di fay jógee Moussa Diagne ak Abdou Boy ngir xoolaat bu baax naka la ñuy saytoo li jëm ci wàlluk anuk mbalit bi fi nga xamee ni moom moo di ci commune bu Saint-Louis tax na nag ay nit yi nga xamee ni dañuy yëngu nag ci wàlluk anuk mbalit bi ñu jox leen nag ay GIE tudde leen ko ma ñoom nag ñoo doon amal ab bëccëgub waxtaan sottante xalaat naka lu ñu fexe ba li nga xamee ni rek moom moo di mbalit mi nekk fii ci Ndar nga xamee ni bare na lool ay jafe-jafe ñu xool naka lañ koy saafara ci fi nga xamee ni moo di ci faubourg bu Sor ak tamit ci Langue de Barbarie tey bu ñuy xool tey dañuy xool lan mooy gàllankoor liggéeyu GIE Setom yi liggéeyu GIE Setom yi nag dafa am lu nga xam ne tey mën na ni loolu rek mooy indi gàllankoor bi gàllankoor bi mooy lépp li nga xam ne tey mooy li nga xam ne mooy dem ci fonctionnement wu GIE Setom yi tey bu ñu xoolee xam ne tey dara mënu fi dox te amul fonctionnement. mais le problème en est tey mën nañu xool ni GIE Sotami ñu ngi souffrir si benn dysfonctionnement mooy dysfonctionnement boobu moom mooy li nga xam ne tey moom mooy soqaliwaat GIE Sotami mooy li nga xam ne moom mooy jóge si mairie bi di ñëw si GIE Sotami muy la subvention municipal maire bi dana ko def ni mu ko war a defee mais tey dafay am blocage au niveau du payeur municipal tey payeur municipal boobu tey. mën na xool ni GIE Sotamine dañu fay am quatre subventions ba cinq subventions ñu jox leen benn subvention tey loolu dafay nasaxal li nga xam ne moom la ñuy liggéey looloo tax tey au sorti ñuy def atelier bi pour xool fan la manquement yooyu nekk te manquement yi xam nañ ko teg nañ ci suñu baaraam mais aussi tamit mu mel ne autorités yi nga xam ne tey à part Cheikh Bamba Dièye dañu nekk dans cette ville di liggéey. Cheikh ma Dièye bàyyi leen fii dafa mel ne ñoom tamit dañu xaw a néewal néewal doole GIE Setom yi. fàttali nag ni GIE Setom yi nga xamee ni nag ñoom la ñu samp boobaak léegi mu toll nag ci ñaar fukki at ak lu teg gis nañ ni ñoom dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu tar ci wàlluk ànduk mbalit bi ba tax na nag gannaaw bañ leen dégloo ñu ci bëri sax nee nañu daal liggéey bi ñuy def nii amulu sax ay jumtuwaay yu matt rawatina nag ñàkkub salaire bu métti. Moussa Diagne askanu di yeewoo ca bët gànnaaw réew ak bët saw réew mi la kuréel gi lëkkale jullit yi nekk fii ci Afrique jóg ngir daal di leen jàppale ci loolu nag dugal na ci ñeenti téeméeri million ak ñeent fukk yoo xam ni nee na dañu ko fas yéene jàppale ci wàllu dund ci jamono gu métti gi fukki junne doomu aadama lañ ko fas yéene séddale lancement ga ña ngi ko amalee fa la ca diwaanu Ziguinchor ca teewaay ki nga xam ne moo leen représenté fii ci Afrique sawu jant ak kilifa gox ya goxaat ya fa nekkoon Cheikh Tidiane Cissé ak Kaba bëri woon nañu lool askan wi nga xam ne ñu ngi bawoo ci fukki quartier ak juróom-ñett yi nekk ci commune bu Ziguinchor dem fi nga xam ne mooy centre socio-éducatif bu agence de musulmans d'Afrique bi nekk ci Jaabir ngir jot li nga xam ne moom mooy ay ndimbal yi ñu baaxee daw làqu yi ak ñi nga xam ne ñoom lañ dool dal lool. bii programme la boo xam ni euh, ñu ngi ko jagleel ñoo xam ni ay néew doole lañu war leen a jox lu mel ni suukar lu mel ni duulin lu mel ni meew ak euh, ñebbe lañ leen di jox pour mën leen a dimbale ñu ko jagleel it nit ñoo xam ni wax dëgg yàlla ay néew doole lañu fii ci Ziguinchor. wa tànneefu Ziguinchor ngir lancer li nga xam mooy programme national bi ñu tuddee secours alimentaire bi ama amal mën nañoo jàpp ne lu dëggu la te it coût bi mu ngi toll ci ñeenti téeméeri million ak ñeent fukk ci suñu koppar ci kanamu autorité yi. waaw lu tax ñu tànn Ziguinchor bokk na ci siège u siège u ama fii ci Sénégal Ziguinchor la nekk beneen bi xam ngeen ni Ziguinchor euh, ak. xew-xew yi ñu xam ci dëkk bi wax dëgg yàlla am na ñoo xam ni jóge nañu ci yeneen dëkk ak ñu ñuy tudd ay déplacé ñëw nañu fii donc loolu yëpp tax na Ziguinchor mu nekk gox boo xam ni yeyoo na ndimbal lool lool mais incha allah nañu génn Ziguinchor dem ci yeneen gox yi mu mel ni bi ñoo Bignona Oussouye euh, Sédhiou bekk ko ci euh, Goudomp yëpp incha allah dinañ fa jaar. kon lu war a toll ci fukki junni nit mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jot ci ndimbalu ama boobu ñu jàpp rek ku ci nekk di nga jot ceeb diwlin suukar meew ak ñebbe valeur bi toll ci juróomi junni ak juróom benn téeméer nit ku nekk mu noonu nag ndimbal bi nga xam ne dina wàññi lool tolof tolof ci askan wi. Cheikh Tidiane Cissé méngaleen doxalin ci wàllu yoon moo lëkkale fukki réew ak juróom-ñaar yi nga xam ne ñoo bootu ci OHADA li leen tax a jóg nag moo di méngale seen wàllu koom-koom ci doxalin rawatina ci yoonal ñu ne nag lii dina tax ba ñi nga xam ne ñoo jëlee seen koppar bitim réew di ko indi ci biir réew yi nga mel yu mel ni Sénégal gën cee sawar dañ ciy déglu rek ki nga xam ne moo leen teewal fii ci biir Sénégal di Mountaga Diouf ci micro Coro njaay ak Libaas Ndiir mooy fexe ba am benn sart ci réew yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci suñu organisation euh, réew yi euh, yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci owada dañu nekk réew yoo xam ne en général bi ñu koy créé ay réew la yoo xam ne France moo leen yilifoon donc bi nga xam ne bi ñu demee ba indépendance bi jot alors France dem ñu war a am suñuy texte de loi yoo xam ne moom la ñuy appliqué texte de loi yooyu am na réew yoo xam ne. dañu mente maintenir woon texte yi nga xam ne moom la ñu fi tubaab yi bàyyi lool am réew yoo xam ne xaw nañ ko soppi ba daal mu mën a méngoog ñoom li nga xam ne moom la ñu bëgg 30 ans après les indépendances parce que indépendance 1960 la bi ñëwee ba dans les années 90 ñu xool ne en matière de euh, njënd ak njaay ci mbirum jëflante ci biir ci biir koom-koom sart euh, yi nga xam ne moom moo ŋànkoon loolu dafa dem ba nekkatul benn ci réewu Afrique yi te loolu doon li nga xam ne ki nga xam ne dafa bëgg a euh, jaay dafa bëgg a jënd dafa bëgg jëfalante loolu arrangé wu ko parce que ki nga xam ne dafa jóge bitim réew ñëw indi ay milliards yu bari pour def ko suñu réew moom li ko gënal mooy buy jaay fii wala muy jaay Bamako xëy na bu ñu demee ba xaalis bi nga xam ne moom lañ koy reel en tout cas wala litige dugg ci digganteem ak ki nga xam ne moom lay jëfalanteel bëgg na euh, yoon atte ko xam ne même loi bi nga xam ne moom moo nekk Sénégal loi boobu moom moo nekk ba ma ko loi boobu moom moo nekk Abidjan. Euh, kon mbokk yi li moo gënoon a fees ci xibaaru juróom-ñaari waxtu yi yeneen xibaar juróom-ñetti waxtu lay doon ak Cheikh yi ñu fanaan ak jàmm.